mu ci dox pour lii ñuy wax ñu ñu bëgg ko te ñu mën ko am je donne maintenant la parole a l'homme qu'on nomme Dame Mbodj <laughs> Dame moom layam bi jeex na ma bàyyi la kàddu gi merci jërëjëf jërëjëf Cheikh damay tënk rek ndaxte daanaka wax ji mat na wax dëgg yàlla ñi jot a jël kàddu gi wax nañ wax ju leer wax li nu fi boole ak li nga xam moo nu yëkkati ñun ñëpp donc muy nuy kilifa yi fi nekk yëpp ci turu sunu coalition citoyenne le peuple mais turu coalition yi bokk yépp ci m d di wax ni euh, maa ngi ànd ak seen Sène ak Abdou Karim Gueye pour mu lim ñoom ñaar rek ci délégation bi euh, lii nga xam ne moo na fi dajale nag dañ ciy njëkke rek marsawu njaboot yi fi nekk te ñàkk seeni ñoñ nga xam ni dañoo àndoon ak ñun xeex bi ba yàlla def ñu ñàkk seen bakkan ba tax tey jii ñu dajaloo fi pour ñaanal leen ñuy gërëm imam Dramé mi nga xam moo jiite ñaan gi ñu ngi am yaakaar ne yàlla dina leen jéggal ñoom ñépp ndaxte dañoo dañoo xeex pour seen réew ba yàlla moom leen kon am nañ yaakaar ci ñoom waaye ñu ngi marsawu famille yi tey ñaan lañ fi ñaan yépp tey yàlla ko yàlla nangu mu teeru leen ca aljanay firdawsi ñuy wax ne lii ñu fi dajale nag lu am solo la parce que nag comme at lañ toll laaj na même bu dul dara ñu xool fu ñu toll ci li nga xam ni moom lañ nekkoon ci weer wii bi muy am ci mois de mars deux mille vingt et ci même salle bii comme ni ñu ko waxee ci lañ ñu yónnee délégation sëñ Mountakha Bachir ñu ñëw fekk ñu ngi doon waajal xeex boo xam ne ñi am xam nañ ni bu fekkoonte ni la treize mobilisation ba fa mu tolloon ak la ñu waajoon. bu ñu ko defoon kon heure bi dañ naan président Macky Sall nekkoon na fi président parce que booba waajal ga ñun ñëpp dañoo jàppoon ni dee yi dana bari malheureusement parce que option boobu la jëloon moom président bi gënaluñu woon waaye nag mun mënutuñu woon dellu ginnaaw ginnaaw bi ñu jëlee ñu bëri jaay leen doole gii Marius Sagna mi ak Clédor Sène ak euh, a Assane Diouf ku ne fàttali ku ne ni ñu leen jaayee doole fekk leen seen kër yóbbu leen en prison lépp ci xeex bi la woon ñun ñii euh, dem nañ ci garde à vue Abdou Karim Gueye mii ci la bokkoon ak euh, man mii ak yeneen 19 membre sunu coalition citoyenne le peuple yëpp parce que ñun ñëpp réew mi rek lañ bëgg mu baax duñ fi nekk na kenn dañu xoxotal dañu jaay doole président Macky Sall nag ci jaay doole rek la ne loolu moo tax bin ñu ñaanee fasaase ñu nangul ko sëñ Muntaxa ndax xam dayoom ak xam li mu yéenee jàmm réew mi te ku ko xam-xam ne day wax ci baatin booba gis na ni bu ñu xeexee jàppante réew mi doo nga ci ñàkk mais moom président de la république mi nga xam si moo sàkk woon sëñ Muntaxa ñaan tey jii lam déggoo woon moom moo taxaw di ko salfaañe te booba tiit na parce que bi muy wax na ci Touba dugg boobu dafa tiit mu dem ñaan pour sëñ taxaa ñaan ñu teg lépp ci suuf li ñu sëñ mun taxaa ñaan nangul nañ ko ko ñun amul lenn lu ñu ñaanoon lu nanguwul moom lam diggewul France daal di xëddeen amul dara lu ci doxal donc kon tey jii bu ñu ñëwee à l'heure bilan dañuy wax ni moom président Macky Sall naam profité na ci yokk li mu policier ak li mu gendarme am mais kenn mënta arrêter un peuple déterminé pour aar démocratie aar état de droit am aar ay liberté te ñun ci loolu lañ taxaw kon nag képp ku koy digal moom président Macky Sall ñi koy jay ba dëkk bi tàkkee kenn gisatu leen woon kon ñi koy jay bu leen toppee ba dugal boppam ci guuta dana ci bëgg a génn du ci mën a génn kon ñun li message bi ñuy lancé mooy président Macky Sall dan dellu ginnaaw ñun suñu càkkutéef dañ koo def pour bëgg rek réew mi baax na wax ni moom mënta nekk candidat 2024 ndax te fégal na parce que bu forcé dañuy taxaw jàmmaarloo ak moom lii mooy dëgg may ñu ko fi benn président duñ ko ko fi may senegal ñaari mandat lay yem kenn dootu fi amati ñett loolu constitution bi moo ko wax kon nag lii ñuy wax mooy ginnaaw bi ñu jëlee engagement ni ñun teg nañ lépp ci suuf mais nag dañuy lañ lañ doon sàkku tey lañ ko gën a sàkku kon nag fit fitna buñ ko yee ci réew mi moom président Macky sàll na dellu ginnaaw booy jéem dara ba xam ne lii demul da ngay xam ne demul nga nga jàll ci leneen. ñaari at yi jeex mu joxaat ñu sunum réew sénégale yi dajaloo tànn kin bëgg a tànn dénku seenum réew parce que ñun ñëpp kenn moomul réew ñun ñëpp ñoo ko bokk kon nag fi may daaneel rek mooy temps yi gis nañ. ñuy defi pexe ba gis sax ay médias français di def dans la propagande inacceptable parce que le Sénégal est un État souverain on n'acceptera pas qu'un autre pays vienne s'ingérer dans nos affaires donc intérieures aujourd'hui nous avons un, un, un dossier politique politisé fortement politisé aujourd'hui on n'acceptera pas qu'on qu'on qu'on fasse dans la diabolisation de Sénégalais qu'on fasse dans la propagande internationale Nous voulons que les médias qui sont dans ce travail-là cessent toute affaire cessante parce que nous, nous n'accepterons pas qu'on qu qu la zizanie dans notre pays. Donc ce, ce message également était à lancer pour dire que le peuple sénégalais reste déterminé à combattre pour la démocratie, à combattre pour les libertés publiques, à combattre pour l'état de droit. L'engagement que nous, nous avions pris, toute la société civile, les partis politiques, les Sénégalais, dans leur entièreté, c'était vraiment d'aller à la paix et que les deux parties puissent se parler, parler conformément euh, au, au vœu du Khalif général des Mourides. Aujourd'hui, nous, nous avons respecté notre engagement. C'est le président Macky Sall et son gouvernement qui sont en train de violer toutes les dispositions de notre mémorandum, nous, euh, la société civile et les partis politiques au Sénégal. Donc nous demandons au président de la République de se ressaisir et de comprendre qu'il lui reste deux ans dans ce pays. S'il pour un troisième mandat, il trouvera, le, il trouvera le peuple sénégalais devant lui. Nous n'accepterons pas qu'on viole notre constitution. La même chose, nous voulons que le passeport du président Ousmane Sonko soit, soit délivré dans les meilleurs délais. Parce qu'aujourd'hui, ça également, c'est une injustice inacceptable qu'on puisse retenir le passeport de, de, de Ousmane Sonko alors que rien ne le justifie. Donc tout ça, ça ne participe pas à l'apaisement. Pour aller à l'apaisement, il n'a qu'à euh, prendre des, des, des, mesures qui rassurent. Et prendre des mesures qui rassurent, c'est annoncer publiquement qu'il ne sera pas candidat en 2024. Mais également arrêter toutes les poursuites conformément aux recommandations du, du mais de restituer le passeport d'Ousmane Sonko. Tout ça, ça va participer à apaiser la situation. Je vous remercie.